maa ngi leen di sant bu baax a baax ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu ñëwaat Tivaouane pour installer suñu candidat bi moom mi nekk en même temps le coordonnateur départemental de notre coalition Natangué Askan bi waaye it nekk le mandataire départemental ñu ñëwoon ànd ak moom def tournée ci département bi yëpp waaye ànd moom aussi dem ci commune yëpp pour xool liggéey bu ñu nekk di def ndaxte ñëpp xam nañ ni pré-campagne bi ubina nuko arrêté ministériel bi waxé lolu moo ñu permettre ñu mëna def animation politique duggu ci dëkk dëkkaan ñu ci réew mi yëpp waxtaan ak askan bi xamit candidat yu ñu am kenn ku ci nekk mëna a ak ñom mëna a waxtaan ak seen mbokk pour ñoom it ñu mëna téla xamé suñu bulletin ko soir du 31 juillet ñom ñëpp ñu mëna voter la coalition naataange askan bi Lolo waral fan yi ñu jëlone la zone de la région de Thiès def nañ ko ak coordinateur yi au niveau du département de Mbour ci ñaari fan yi ñu jóge ci ginnaaw ko dans le département de Tiwawan, ak demain inshallah, samedi lañuy dem ci booru Sénégal oriental dem ci yeneen localité yu nekk ci réew mi ci dëkk-dëkkaan yépp mën a waxtaan ak askan bi wax leen programme coalition à askan bi te it ñu mën a bulletin bu baax bi ngir au soir du 31 juillet la coalition naataange askan bi mën a triompher wa le département de tiwawon très honnêtement eu la satisfaction déjà ci pour bu suñu candidat bi nek di qui ci gokh goxaan yi ci yi dans les quartiers les plus reculés du département de tiwawon Nous xam nañ ni que Tivaouane n'est na une ville religieuse nek na aussi localité yo xamanteni ni muy Tivaouane di dëkku Sidil hajj malik ak Touba nekk na ñaari localité yoo xamante ni j'ai tenu coûte que coûte à ce que kuñ fay samp aussi nañ nekk ay góor waaye doon ay kilifa ci dëkk bi ndaxte dafa doon ay gox yoo xamante ni waruñ ko sàggane di ko confier n'importe qui moo tax tey am nañu mbégte bu baax buñ ñëwee depuis ñu dugg ci dëkk bi gis liggéey gu am solo goo xamante ni suñu frère liggéey na ko fi di Adama waaye gis nañ cofeel go xamanteni ni képp koo xamante ni plénipotentiaire nga dëkk nga ci ay communes yu nekk ci biir département bi cofeel gu ñu am ci moom donc loolu au nom des leaders de la coalition ñu ñëpp am nañ ci satisfaction morale liggéey boobu nag mi ngi continuer incha allah fépp ci réew mi ngir suñu borom subhanahu wa taala ñu talal ko suñu loxo ci liggéey gu ñu njort ni incha allah au soir du 31 juillet coalition na tangi askan bi buñu nek yalla mën ñu ci may ndam inshallah ci ban système ngeen liggéey ba tax tay ñuy té yenn coalition yi bàyyi naataange te ñuy dooru ci wa waaw lu ñu wutaleeg yeneen coalition yi ñom bu ñuy togg dañu togg soti diw bi muy sens waye ñun dañ ko ñuluk bu ñu ko ñulugé nak ñu xaar ba mu ñor rek ñu yekkal ko askan bi loolu lañu yalla yàlla loolu la ñu yàlla dimbalee ba indi ba alhamdulilahi rabbi alamin bu ñu jàll ci parrainage bi amuñ ci benn difficulté ñun ñooy coalition bu njëkk déposé ci mbirum parrainage ci aussi dëkk dëkkaan yu nekk ci réew mi yëpp ak ci biti réew ñu contribuer bu baax ci euh, parrainage bi ba amuñ ci benn problème tey alhamdulilahi rabbi alamin li ñu am ci parrainage ci réew mi mënoon nañ ci dimbale yeneen ñeenti coalition ba juróom waaye ñoom ñii bés bu ñuy dem déposer parrainage bi sax dama leen bu ñu ci def tentamar bu ñu yóbbu benn presse ñun déposé nañ ñaari fan après la yeneen coalition yi sax tàmbali déposé pour wax leen ni que teel nañ pare alhamdulilahi rabbi alamin bu loolu it jàllee bu leneen desee mooy déposé suñu liste alhamdulilah amuñ ci benn jafe-jafe respecté nañ parité yi département yoo xamante ni am nañ fa ay liste ñu ngi ciy liggéey yeneen département yoo xamante ni aussi amuñ fa ay liste nommé nañ fa ay mandataire ñoo xamante ni ñoom ak ñu nekk ci liste yi même liggéey la ñuy nekk di def tey ci suba képp koo xamante ni mandataire nga nekk na ci quarante six départements yi ak au niveau de la diaspora dem nañ déposer seeni i lettre def seen jot nañ aussi seen notification ci préfecture yëpp muy ci réew mi ñu nekk it biti réew dem nañ ci ambassade yi ak ci consulat yi dem déposer fa seeni i lettre kon nag amul lan lu ñuy def lu dul sant yàlla bu baax a baax dugg nañ ci période euh, pré campagne bi ñaan yàlla duggee ci ci bismillahi rahmaani rahim ñaan yàlla aussi génnee ci ci alhamdulilahi rabbi alamin ba dugg ci campagne bi lépp aussi ci yar ak ñaan suñu borom subhanahu wa taala lepp luñ ci nar a liggéey rek euh, yalla ñu yalla tek loxo ba ñun coalition bi ñu nek aussi ñu mën ci am satisfaction morale moy am ci un score honorable xam nga ñun nous sommes des centristes ñun bokku ju ci nguur bokku ju ci opposition ñun dañu tracer suñu yoonu bop moy la troisième voie moy une alternative lañu proposer sénégalais yi alternative boobu mooy jafe-jafe yu sénégalais di dund naka la ñuy def ba dimbali leen ci muy ci mbirum ndox mi muy ci mbirum électricité muy ci mbirum éducation muy ci mbirum santé muy ci mbirum justice waaye aussi mooy ci mbirum kaaraange réew mi mooy lu ñuy woowee mbirum sécurité sécurité boobu nag dañu war a dooleel tey Sénégal lu ñuy woowee nos forces de défence et de sécurité loolu incha su suñu duggee ci campagne bi dinañ ci duggaat ànd ceeg candidats yi ànd ceeg ñëpp ñoo xamante ni c'est des investis parce que nit ñi war a xam mooy képp koo xamante ni tu es investi sur une liste ba mu jàll rek tu es un candidat donc kàddu gi ma nekk di def ku ñu nekkal Goudomp dina ko def ku ñu nekkal Sédhiou dina ko def ku ñu nekkal Médina Yoro Fula dina ko def ci ay fan yu néew maa ngi waaj a dem Kolda jotaay bu mel nii moo fu war a am donc candidat yëpp yu ñu am ci réew mi ñu liggéey ngir la coalition naataange askan gi mën a triompher au soir du 31 juillet incha allah.